penc mi awma problème ak kenn jamais penc mi suba bu ma neexoon suba bu ma neexee léegi-léegi incha allah ci kàttanu yàlla bu ñu paree grand théâtre ñu dem raxasee penc mi man maay toog par yenn saa yi bañ de affaire de par yenn di nga jublu bés ne Saraba laa bëgg a jouer affaire la musique yëg-yëg la de barki Demba Ndiaye rek Papa Thione ba muy def albumam dama cee way ñetti morceau <laughs> kooku suma papa la Waly suma mag la eh, yàlla def na famille boobu dañ maa teel a bëgg ba grand théâtre bi Waly ba ma demee wax ko grand théâtre bi macha allah dafa am fu mu jaar ak man non mais Youssou Ndour en tant que doomu Medina sax Youssou Ndour suma papa la sama papa la parce que dafa am lien boo xam ne maag doomam dañ ko am Birane Ndour mooy sama DG mooy sama lépp ma koy nuyu di ko saluer de passage euh, loolu loolu devoir am la def parce que doomu Medina la te ku nekk tamit sa gox ngay tiitaroo sa gox non mais c'est vrai loolu ah loolu suñu papa Youssou Ndour duñ ko blâmer man El Hadj Keita ma ko blâmer ci loolu parce que moom fi mu nekk niveau bi mu nekk man du man maa koy wax ah li mu war a def ak li mu waaye la mu def loolu daf ko war a def te mu normal la papa la dafa waroon xool si doomam mu xool si ko loolu kepp la artist day am fans yoo xam ne dañuy xaw a jalouse xanaa moom fans yi ñooy indi sax ay détails ci entre artistes yi mais sinon du artistes yi artistes yëpp ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun xamante nañ mais fans yi ndeysaan bu ñu gisee beneen artiste def leen rek pour ñoom seen artiste daf ko war a def te affaire du tollul foofu sax mais ñoom lu ñu bëgg rek yow nga leen di defal mooy say fan sax parce que ñoom ñooy dagg seen nelaw di ñëw soirée parce que ñoom tamit euh, ñooy ñooy fay seen xaalis di ñëw ñoo ñu amoon lenn lu dul béggal leen topp ci lu ñu bëgg loolu képp moo tax ñu jël ko am ay ñaanu waajur tamit parce que àdduna loolu mooy lépp am nañ ay ñaanu waajur sunu yaay ñaanal nañu sunu pap ñaanal nañu mooy Neymar bi loolu sunu sunu sunu papa DJ DJ Boubs Boubacar Diallo moo ma ko tuddee ma koy nuyu moo ko tuddee Neymar bi kooku tuddeewu ma ko sam bopp <laughs> ah boobu question boobu loolu la beneen bi mooy ah oyof moom ah, suñ borom moo koy def ci nit rek nam ma ko ci nit ak yaru ah, nii la ñu mës xamee nii la juddoo te ñaanuñu yàlla soppeeku ci kàttanu yàlla ak ay milliards je resterai El Hadj Keita bi ma bi ñu ma xamee woon incha